salaamaaleykum xarit yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub wi mu tëral ngir mucc ci mbugalu safara ba faaw sunu mbégte rey na ndax li nu mën a dellu si di leen dëgtal seen émission yoonu njub mbokk déglukat yi mbind mi dafa ne nit liy feeñ lay seet waaye yàlla xool lay seet loolu lu yàlla waxoon la jaarale ko ci gémmiñu yonent yàlla Samuel muy wax ju kenn ku nekk mën a seede ak wéram misaal mi sax mën naa bañ a sore bés bu set nu gis lu nu mel fi nu wér nit ñaa ngi wax ak a def ngir fexe feeñal lu wuuteeg li nekk ci ñoom ci seeni xol lépp ngir rekk nit ñi gis leen naw leen loolu ngistal la ngistal nag lu yàgg ci àddina la waaye yàgg fi taxul mu nekk lu baax nit li muy gis ak a dégg dafa ko yitteel lool wante yàlla moom xol lay seet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 yan leen ci nit ñi waaye duñu ko laal sax ak seen cati noonu yéesu wëlbatiku ca xutbakat ya ak farisiyen ya ne leen yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naa feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naanaa ak anet ak kumin te sàggane yi gën a màgg ci yoonu muusa maanaam njub yërmande ak ngëm loolu ngeen war a def ma nag ngeen bàyyi la ca des yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg wallax njaan tey wann gileem yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naa feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndabli waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal farisiyen yu gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir bit bi itam set yéen xutbakat yi ak farisiyen yi naa feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñu weexal ci biti am nañu melaw wu rafet waaye ci biir dañoo fees ak yaxi ñi dee ak tilim ju nekk yéen itam ci ngistal dangeen ni mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak naafeq ak lu bon yéen xutbakat yi ak farisiyen yi feq yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi tey rafetal bàmmeel yu ñu jub ñi te yéen a ngi wax ne bu nu fekke woon sunu jamonoy maam dunu ànd ak ñoom ci tuur deretu yonent yi seede ngeen nii ne yey ngeen seen bopp te yéenay doomi ñi doon rey yonent yi di aw seen tànki baay ba yées leen sax yéen ñi mel ni ay jaan te fees ak dangar ni co naka ngeen di mucce ci mbugalu safara xarit yi noo déggandoo wax yéesu yu dëgër yi mu jëme woon ci xutbakat yi ak farisiyen ya maanaam boroom diine yi eh, jamono jooja yeesoo ngi doon daan seen dundinu ngistal ba tax mu waxoon leen keroog juróom ñetti yoon dingeen torox tey nag dunu am jotu faramfànce lépp waaye tànn nanu ñeent dingeen torox yu mujj yi leen yeesu waxoon ngir gis li mu ci bëggoon a jàngale kon ci bu jëkk dañuy gis ni yéesu waxe woon boroom diine yooye ne leen dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naanaa ak anet ak kumin te sàggane yi gën a màgg ci yoonu Muusa maanaam njub yërmande ak ngëm loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen bàyyi la ca des yéen njiit yu gumba yi yéen a ngi segg walax njaan tey wann gileem juróomeelu dingeen torox bii dafay ŋàññ sart yu dëng yi xutbakat yi ak farisiyen yi tëraloon fonk leen te sàggane li gën a am maanaa kanam yàlla dañu daan topp warigari diine yu sew sewaan yi waaye amuñu yërmande ci kenn te duñu doxal njub ci lenn ndax seen ngëm gu ñàkk xóot li amoon solo ci ñoom mooy ni leen nit ñi di gisee loolu nag ba tey am na fi am na ñooñ dañuy jàngale te seen dundin dëppowul ak li ñuy wax nekkewuñu fi lu dul seet njuumte yu ndaw yi nekk ci dundu nit ñi te ñoom duñu gis bàkkaar yu sax yi nekk ci seen dund ñoom moo tax yeesu doon wax naan lu tax ngay xool ñax gi ci sa bëtu mbokk te gisuloo gànj gi ci sa bët yow nan ngay waxe sa mbokk may ma ma dindi la ñax gi ci sa bët fekk gànja gi ci sa bët yow naa fekk jëkkale dindi gànj gi ci sa bët te noonu dinga mën a gis bu leer ngir dindi ñax gi ci sa bëtu mbokk ñu mel noonu yeesu nee na duñu ay royukaay yu baax ak lu ñu yiw yiw ci bëtu nit ñi gannaaw loolu yéesu ne woon na leen dingeen torox ndaxte yéen a ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dafa fees ak càcc ak ëppal fariseen yu gumba yi jëkk leen a setal biir kaas bi ak ndab li ngir bit bi itam set mbokki déglukat yi ni ko dégge juróom benneelu dingeen torox bile dafay daan fariseen yi ak xutbakat yi ci seenu bëgg feeñ seen yitte yépp mooy fexe ba nit ñi jàppe leen ay boroomi diine teg leen fu kawe noonu ci biti ci li nit ñi gis ñu mel ni ñu yiw fekk ci biir fa yàlla di xool mu nga fees dell ak xeetu bàkkaar bu nekk noonu yéesu xamal leen ne li ñu waroon a jëkke mooy setal ci biir maanaam xol bi foofee nga xam ne fala bàkkaar yeeg lépp lu bon di bawoo noonu li ñuy fexe wone ci biti dina mën a jag wante ngir loolu mënoon a am dañu waroon a réccu te tuub seeni bàkkaar te gëm almasi bi yàlla dige woon di yeesu waaye ñoom ñu gàntu yéesu mi leen mën a fanqal mbugalu safara li yàlla bëgg mooy réccu gu wér ak ngëm ci musalkat bi mu yónnee loolu mooy tax sa dund mën a meññ njub ak dëgg gi bawoo ci biir xol waaye yéesu jeexalagul ci dingeen torox yi noonu mu neeti leen dingeen torox ndaxte yéen a ngi mel ni bàmmeel yu ñu weexal ci biti am na melowu rafet waaye ci biir fees ak yax yi ñi dee ak tilim ju nekk ci ngistal dangeen a mel ni ñu jub waaye ci seen biir dangeen fees ak nafeq ak lu bon ni ngeen ko dégge xarit yi ñuy déglu juróom ñaareelu dingeen torox bii dafay dellu di biral ngistaluk boroom diine yooya muy ngistal gu wér ba tax yeesu di leen méngale ak i bàmmeel bitib bàmmeel mën naa rafet lool waaw am na bàmmeel yu yànj lool waaye la nekk ci biir kenn bëgg caa teg say bët bi yeesu waxee loolu yamale ko woon ca farisiyen ya niti jamonoy tey ji itam bari na ci ay farisiyen ak i xutbakat maanaam ba tey am na ñuy wax lu baax ci dégg di def lees mën a rafetlu wante boo ko seetee ba ca biir rek mu nekk mbir yooyu jógewuñu ca xol ya dañu koy def ak a wax ngir wut aw woy ca nit ña leen di déglu ñu mel noonu yéesu nee na jot nañu seen yool ba noppi yàlla xol lay seet te loolu Yeesu ne leen dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi tey rafetal bàmmeeli ñi jub ñi te yéen a ngi wax ne bu nu fekkee woon sunu jamonoy maam du nu ànd ak ñoom ci tuur deretu yonent yi xarit yi déglu juróom ñetteelu di torox bii mooy bi mujj yéesu nag nekk di ci won xutbakat yi ak farisiyen yi ne ñoo yem képp ak seen maam ya daan rey yonent yi soppikuwuñu ndax kéwal du tëb doom ja bët wone nañu ko ci seeni jëf moo tax yéesu laaj leen laaj bu am solo bopp tontu li ci moom mi ñu bañoon a gëm rekk la nekk dalee na laaj ne yéen ñi fees ak dangar ni co ndaxa ngeen di mucc mbugalu safara laaj bi waxuma fariseen ya sax waaye war na soxal képp kuy doom aadama moo tax yow miy déglu itam boo nu mayee nopp ci kanam tuuti nu indil la tontub laaj bu am solo bile waaye jëkka la xam ne njiit yooyu ñoo daan jàngale téereb yoonu yàlla wi mu dénkoon yonent yàlla muusa ñoom xutbakat yeek farisiyen yi li ëpp ci seenum njàngale ameesul woon dara lees ci mën a wax waaye nag li ñu daan jàngale daawuñu ko jëfe ñoom ci seen bopp moo tax yéesu doon dànkaafu nit ña naan leen bu leen roy seeni jëf yéesu ne itam wattu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal lu ko moy du ngeen am yool ci seen baay bi nekk ci kaw kon sama waay boo déggee ni borom bi yéesu arto woon mbooloo ma ngir ñu moytu ngistal xanaa dinga ne waaw naka lees mën moytoo ngistal nag yéesu tegtal na ni loolu mën a amee waaye ndegam deesul jiital ab saret sook cay takk aw fas moo tax yeesu ne woon farisiyen ya ak xutbakat yi yéen ñi fees ak dangar ni co naka ngeen di mucce mbugalu safara muy laaj bu kenn ku nekk mën a laaj boppam tey naka laa mën a mucce ci mbugalu safara mbokk mi ni déglu nii la mbir yi war a deme ngay soog a am tontub laaj boobu yow ci sa bopp dangay jëkk a gis ne yàlla dafa sell ba dara lu taq baakaar mënu koo jege gannaaw loolu nga nangu ne nit baakaarkat la ndaxte mbind mi nee na ñépp a baakaar ba joteetuñu ci ndamu yàlla te loolu bàyyiwul kenn kuy doom aadama ndaxte sunu maam aadama mi jëkk a daanu ci fiir moonu bàyyee ndono lii di baakaar boo nangoo loolu ba noppi nga gis nekkoon nit amul pexem jege yàlla ci kàttanu boppam waaye yàlla moom am na pexe mu mu waajal pexe mi mooy yàlla yónnee na almasi bi yéesu mi mu fal mu dee ca bant ba tuur deretam ngir far sa boru bàkkaar noonu soo gëmee yéesu ni sa musalkat dinga mucc ci mbugalu safara rax ci dolli yàlla dina def ci yow xelam mu sell mi lay may doole ba nga mën di moytu ba say jëf bañ a nekk ngistal ni ko yéesu waxe ngistal mën na feeñ ci fànna yu bare ci dundinu nit mel ni ci sàkk sarax ci ñaan ci koor ak ñoom seen moo tax baax na nuy fàttaliku li Yeesu wax ci mbir yooyu ak yeneen yi ci des yépp ci misaal ci mbirum sarax yéesu dafa ci wax ne booy sàkk sarax bu sa loxo càmmoñ xam li sa loxo ndeyjoor di def ngir sa sarax nekk kumpa noonu sa baay bi dara umpul dina la ko delloo Yeesu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 ni sa musalkat bi dee ca bant ba ngir rawale la ci mbugalu safara noonu xel mu sell mi dina la may kàttanu moytu ba say jëf duñu nekk ngistal ci fànn bu mu mën a doon ci sa dund waaye su loolu jëkku la am dangay sonal sa bopp rek kon xarit yi fii lanu yem tey ba beneen su ngeen bëggee xóotal seen xam-xam ci mbir mucc gi leen yàlla bëgg a may mën ngeen nu bind nu yónnee leen benn téere bu tudd tout ce qu'ont le les te du ngeen ci fay dara téere bi nu leen bëgg baaxe ëmb na lu ëpp junni aaya yu nekk ci mbindi yonent yi boo noppee jàng téere bi nga mën a xam bu baax li yàlla bëgg ñépp xam ko maanaam ki mu doon ak li mu def ngir nga mën a dëkk ak moom ba faw kon nag soo bëggee am benn exemplaire ci téere bii di tout ce qu'ont dit les bindu nu ci sunu adresse bi di yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li Yeesu wax ne wattu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal nit liy feeñ lay seet waaye yàlla xol lay seet.